asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu dikkee leen kàddu yoo xam ni mi ngi bàyyikoo ci cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifi général des Mourides mu jëm ci ndigal loo xam ne joxe na ko mu jëm ci ni ñu war a taxawoo wàllu njàngale mi ci biir dëkk bu tedd bi di Touba ak lu aju ci ni ñuy saytoo jàkka yi ak jumaa yi muy ndigal loo xam ne mi ngi ko joxe ci teewaayu sëriñ Ahmadou yi mi nga xam ne mooy jiitu daayira Rawdu Rayaahiin ak sëriñ Afiya Buso mi nga xam ne moo jiitu daayira Muxaddamatul Xidma bu jumaa ju mag ji muy kàddu yi mu yëkkati ci bisub dibeer fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ati gàddaay gi fii ci Touba Daaru Minan dëppoo benn fan ci weeru octobre atum 2023 bismillahi rahmaani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 yàlla na tey moom may ndaje mi ñu daje ko ma daje ko bokk yu baax yi nga xam ne diine ji rek mooy seen itte taalibe gi ak ak taalibe diine ji mooy seen itte mooy seen itte ak loolu rek mooy seen liggéey na na na na ji gën a nasoo na mu gën a Euh, doxe euh, na mu gën a marché euh, loolu mooy wàllu diine ji wàllu taalibe gi itam ala kulli xaalin il fokk nit ñi ñu gën a xam sëriñ bi gën a gën a gën gën a xam aw doxinam waaw te te def ci sunu kattan yëpp sunu yitte yëpp sunu xel yëpp sunu kattan yëpp ñu def ko ci jéem a xam kan mooy sëriñ bi jéem a xam lan moo di aw doxinam te te te nekk ci nag nekkal ko ci loolu mooy lii mooy li ci mooy mooy mooy mooy li am solo mooy muy yitte ji kon nag euh, euh, képp koo xam ne euh, dëkk bu sell bii sëñ bi sàkkul ko boppam di gëm a boromam ba amee ko ni ko bëggee mu dox ba agsi fii kon képp koo xam ne da yàlla daa xiirti ñëw fi Eh, na nga xam na nga xam ne dëkk bi dëkkum ndigal la ah, te it bëgg nañ ñëpp maasa ci benn doxin bi muy doxinu sëriñ bi waaw ah, loolu bëgg nañ ñëpp koo xam ne yàlla xëy na ci nga jëm ci dëkk bi rawat na nga sax nga ne da ngaa mën a jàngale diine ba di ko jàngale loolu lu mën a xew la ca jiitu mooy eh, nga nga nga jéem a xam kan muy sëriñ bi jéem xam lan mooy doxin boo ko defee bu fekkee ne am njàngale moo la nga xam mu wóor na la ne faw njàngal njàng fii liñ fi jàngale daal mooy njàngalem sëriñ bi njàngalem sëriñ bi nag yóbbaale na lépp ndax moom aqida moo fi nekk mazhabul maliki moo fi nekk tasawuf jund yi moo fi nekk boo boole yooyu yëpp delluwaat ci charia ak xaq bàyyiwul dara gannaaw waaw kon nag loolu moom waxuma la sax bàttu sëriñ bi ak ak digg ma borom waaye saayir soosu rek dafa tënku dafa doy tënk tënku ci lépp ci soobu yoon yàlla fas yéene ko jaamu na mu na mu na mu gën a ko gën a le loolu kon Euh, ginnaaw noonu la demee nag maa ngi joxe ndigal loo xam ne euh, euh, loo ci fas rek mooy ñëpp nu marché fas yéene sax dàkk ci liggéeyal sëriñ bi jaamu sunu borom na mu gën na mu gën a rafet waaw liggéeyal ko ci suñ lépp suñ lépp lu baax lu ñu cay def rek nu fas ko ci def def fas ci léegi fas yéene ko ci liggéeyal loolu mooy li nga xam ne moom lay moom laay joxe ndigal kon na ñëpp ñi nga xam ne noo bokk noo noo noo jëm si nañ fii ci Tuubaa de bëgg bëgg fee bëgg fee liggéeyal bëgg fee bëgg fee liggéey ci diine nañu xam ne eh, ci loolu amul nen na fañ koy mën a jaare furul ci jéem xam sëriñ bi jéem jéem a jéem a xam doxinam eh, fa fa fas yéene caa nekk fa seen nekk eh, ndax bàyyiwul dara gannaaw di di nu mu war na diine yëpp lu mi ngi ci biir loolu lu aju ci taalube eh, jëkk ca saxaabu rasul ba léegi lépp mi ngi mi ngi ci mi ngi ci biir yoon wi kon nag yoon wi da wuti wutu fenn dara lépp sëñ fàggul nañu ko aju woon na ci boromam am nañ ko am nan nan nan ko nan ko bëgge eh, kon jaamu yàlla ak liggéey Sëñ Tuubaa rek moo fi nekk te yàlla tax kon nag ñëpp xam ne ndigal li dox doxin benn la benn rek la mën a doon waaw doxin bi rek benn bu moo xam ci njàng mi la jëm moo xam ci doxinu jàkk ji la jëm kon doxin wi na benn rek la mën doon kon na ñë na ko na ko ñëpp xam lépp lu ci lu ku jógati bëgg bëgg bëgg bëgg a liggéey surtout ci wàllu diine ko euh, laaj na nga laaj yoon wa bañ wax la ko nga jaar ci yoon wa ñu digal la ko nga defee ko loolu mooy digal la moo xam ci njàngale mi nag moo xam ci jàkk yi waaw jàkk yi kon na ko na ko ñëpp xamee noonu euh, te xam ne kat euh, loolu mënut a ñàkk dana nu jaral lu ne nag loolu tegu loolu aw aw yoon ñun ñëpp nu maas ci dana nu jaral suñu suñ suñu bakkan waaw bon nag eh, nguur gi nga xam ne moom dëgg la yàlla def ànd àndandoo nguur gi fi nekk loolu itam ala kulli haal ñii bokk yu baax yi dox nañ lépp te te yëgal nañ leen ko te jubóo nañ ci ak ñoom eh, kon nag lu ci bëgg manqué itam daanoo ànd nguur gi faj faj loolu na mu ko na nañ ko war a faje waaw na ko ñëpp xam ne noonu waaw lu ci bëgg a manqué rek danaa dana dana dana ànd ak dana ànd ak ñi ñi yàlla dogal ñu nekkoon fi sëñ bi ba ba nokki bi alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi am li mu bëgg bokk fi nekk loolu kon na nañu xam ne lépp luñ ci bëgg a jaaxal nag daan ànd ak ñooñu faj loolu ak nun ko mën a faje rek loolu ne ko ñëpp xam di gën a santaat bu baax suñu borom mi nu booleeg sëriñ bi di gën a sëriñ bi bu baax mi nga xam ne fàggul lépp biir bi tey ëllëg lépp lu ñuy jëriñ tey ëllëg ci biir ci rek fàggul nañu ko alhamdulilah rabbil alamin maa ngi leen di seeral kooku cant pour suñu gën ko bokk ak yéen di leen sant yi seen taxawaay ndax di taxawaay dara maa ngi wuti yéen bee diis rek yitte ji rëy waaye dara maa ngi def ngeen li ngeen leen def lépp dara maa ngi wuti kon nag li ñuy ñaan rek mooy suñu borom mi nga xam ne mooy def dindi mooy def ak dindi te telewul dara mu gën noo gàtt nag tawfiq sëñ Tuubaa mu gàtt nag tawfiq sëñ bi rek lépp dana yomb incha allah lépp dana marché lépp dana mel na du ko bëgg bu ko defee nag loola mooy tax suñu xel gën a dal mu xam ne li sëriñ bëgg noo ci <laughs> noo ngi ci gannaaw suñu lépp ak ndigal yu leer yooyu nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké joxe na ko mu jëm ci wàllu barabu jàngukaay yi ak jullikaay yi ci dëkk bu tedd bii di Touba sëriñ Ahmadou Badawi mi nga xam ne moo jiite daayiratu Rawdu Rayaahin dikkaat na ci nan lañu ñu nose woon liggéey bi yan ñooy kuréel yi nga xam ne ñoo ci doon liggéey ak yoon yi nga xamante ni képp koo xam ne bëgg ngaa saytu barab yooyu muy barabu jàngukaay wala jàkk ak juma ci dëkk bi ci yoon woowee ngay jaar ñu déglu ay kàddu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu yëkkati ci ziar ak ak ñaan sunu biir xol jëmee ci ko Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan sunu borom bàyyil na fi tam ko wér ba yéeneem ji mu am ci toolu sëriñ bi. ci mu yeggale ko fu mu ko bëgg a yeggale di ko siyaare bu baax a baax ci guddi gu weer guddi gii ñu génn nga mooy guddi seriñ bi di laylatu mawlidin nabi ku koy màggal rek sëriñ bi nga koy nga koy defle te moo wax ne defoon naa ko ca ama achachin boobaak léegi téeméeri at ak ñeent fukki at ak juróom la axle axyeytu mawlidin nabi min achachin waqaada lii fawqal munaa fii hamchachi kon boobaak léegi mat na téeméeri at ak juróom fukk nu fanaane ko fii mm-hmm. ci wetu ku tedd ki di jàngi xasidaam yii nga xam ne siiratu sallallahu alayhi wa lépp nafar nañ ko keroog ci guddi gi mboolem tagg yi nga xam ne nit mas na ko tagg sallallahu alayhi wa mm-hmm. yi sëriñ bi dafa ko kawe te jàng nañ ko fi gépp julli guñ mas a julli ci moom fanaane nañ ko fi mm-hmm. waaye mboolem ñaan yi nga xam ne ku baax ñaan na ko jëmee ko ci bindee fi ñaan nañ ko fi te gëm nañ ne wóor nañu ne sunu borom nangu na ko dundal dundal guddig yonent bi salaatam ci wetu Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu amiin rek lañ def tefli ñaan jóge ci Mbakke waaye fas nañ ci nga yàgg fitaan taan rek wér ngi la ci siyaare waat bu baax a baax baax baax di am mbégte lool ci jataay bii nga xam ne am nañ ko tey ci sa ndigal muy ñaari ndigal yoo xam ne yëpp danga ma koo jox te benn mënu si ñakk muy li jëm ci jàkka yi ndax ku ne xam ne ne Tuubaa moom daara la wajaal bu yooti kullaha masajida yaa naa fi yéen man laa yëkkoon saajida mm-hmm. kon Tuubaa fépp jàkk la mm-hmm. waaye nag loolu dafa dafa dafa firndewu lool biir mm-hmm. ba koñ boo dox foo taxaw fekk fa jàkk ak jubaa waaye lislaam dafa nosu leen lu nekk dañ ko war a nos moo nga joxe ndigal nag ngir ñu nos ko seet fu nekk bala ñoo fu ñu tabax itam diggante bi masaafa bi nga xam ne lislaam da ko wax ci diggante ñaari jumaa ñu sàmmonteeg moom waaye xutab yañ fay def mu jëm ci mbooloo yi moom itam war a dëppoo ak dëkk bi ak njàngalem sëriñ bi waaye ehm, nañ ko fay defee itam lépp wara a tënku ci ndigal ndax Tuubaa dëkkum ndigal la te yaa yor ndigal li loolu itam doon loo xam ne ñu boole ñu ko ak mbooloo mii di muqaddamatul xidma ñu am tawfiix yor barab bu màgg bii di jumaay Cheikhul Xadim ji nga xam ne mooy yaakaari murid yëpp ñu ndigal si ñaa fi buso ak njabootu muqaddamatul xidma ñu ànd liggéey boobu bi ñu tase woon fi tey fas yéene soobu ci ndigal loolu jëfe ko bi ci dolli ko it mooy sa liggéey bu mag bi bi nga ko yëkkateeg léegi ñëpp dañoo fax jëm ci mel ne nag njàng ak jàngale moom daa doon moo xewetu jamono fi mu ne ñi saytu wàllu googu wax nañ ne boobaak léegi lu mat ñeenti téeméeri école gis nañ ko fii ci dëkk bi te lu nosu rek day daal di am neneen nu mu tudd loolu itam bi ñuy waajal sa liggéey bi nag waajtaay bi dañ ne woon ni nga ko waxee woon rek li tàmbalee ci kii kii dal baasin ba ci njobaxtan la ñu kon ñu ne bàyyi woo menn njàng bàyyi woo kenn ku bëgg jàng bàyyi woo lenn lu am njëriñ lu ñu war a jàng mu amoon nag ay ay kuréel ñu koy wax ay commission yu mat fukk ak juróom bu ci ne am lu mu féetewoo woon alhamdulilah rabbil aalamiin yëpp noppi nañ seenub liggéey bi tax ñu tase fii tey nag mooy bi nga xam ne ñoo waroon a nos nag njàngu mi nekk ci dëkk bi ak mu fi war a ñëwaat ëllëg mboolem da jàngukaay yi fi nekkoon yëpp ñu tënk leen ñu am yoon woo xam ne ci la dox wu dëppoo ak seen ndigal dëppook dëkk bi te loole rek mooy lislaam mooy njàngalem Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waaye bu ci nekk nag ñu xool lañ fa doon jàng saytu ko la ca manqué woon te mënu caa ñàkk ñu dugal ko ca te lépp mooy njàngaleem lislaam ak atarbiyel islamiya atarbiyel muridiya te loolu ñëpp ko soxla ñi xam ne ñoo yor njàng mi ñoom ci seen xamoon nañ ne am na lu ci manqué nangu nañ ko itam am na ci ñu wax ne nag jàpp nañ ne lu koy jubanti fii lay jóge loolu nag moo tax waajtaay wi compuñu ko dañ ko jox akam ba mat sëkk lenn lu ci ne lañ jàpp ne luñ ca war a def la def nañ ko ca ñu bëgg nag sa ndigal ci sa ndigal lii nga joxe mboolem ñi yori jàngukaay ci dëkk bi ñu tënku ci loola te loola day waral ku fi jànge da nga jàng li ñuy jàng feneen ci biir réew mi waaye danga am loo xam ne amul feneen ci biir réew mi loo xam ne te mënta lu mënta ñàkk la loolu kon mooy solas daje bi nu fa yéene nag daal di soobu ci liggéey bi li ci aju ci wàllu li ñuy tuddee école it dañ ko ànd ak ñi nga xam ne yor wàllu njàng moomu ci réew mi waxtaan ceeg ñoom tëral ko ci anam goo xam ne ñoom rafetlu nañ ko wax ne itam dañuy ànd ak nun ci doxin wa bu ko defee ñu ca war a jubbanti ñu jubbanti ko ca lu ca doon loo xam ne luñ war a saafara la ñu ànd kook ñoom saafara bala fee kenn ubbeetib jàngukaay itam day am ndigal këyit woowu nag lay yóbbu ca Mbàkke fa li ñu ca ñu yor njàng ma fa li ñu tudde EF ñoom ñu soog a saytu ñoom itam ba mën koo jox ndigal nga xam ne ëllëg ku fi jàng bu amee diplôme dana ko mën a jariñoo ci réew mi dana ko mën a jëriñoo ci bitim réew loolu daal Mbàkke ci mooy mooy tënkub jotaay bi di àndaan nag di ñaan rek nga yàgg fi te ànd ko gër di sant bu baax di la gërëm ci taw tawfeex ji nga ñu defal ci liggéeyal sëriñ bi ndax wax nañ ne mag ñu bari dañ daan dàkk bëggug sëriñ bi waaye ñun ñu am too yi nag sëriñ bi nañu lii laa bëgg defal leen ma ko te defal leen ma ko nii loolu Mbàkke ñu ngi la ci sant di la ci gërëm ñu sant di la ci gërëm